on a attribué ay 300 hectares ay 400 hectares à des investisseurs à des investisseurs et personne n'a crié dans d'autres zones on a on a attribué à mën naa la président la malgré respect que je lui dois bu mu nee am 4,5 hectares 4,5 hectares fële ci Sandiara te moom mu bindu kenn amul droit am 40 hectares ou 20 hectares inspecteur des impôts bu fekkee secteur syndicat des euh, euh, des inspecteurs des impôts mun na joxe kër lu dox UDEN aussi SUDES mënul joxe kër ak SUDES yooyu ñoom ñëpp dans leur revendication attribution des parcelles la durant tout le temps que j'ai été au ministère de l'urbanisme c'est toujours des négociations sur les depuis 2012 2013 des engagements qui n'ont pas été respectés par l'État du Sénégal depuis des engagements qui n'ont pas été respectés ces engagements là où est-ce qu'il faut les respecter c'est dans ces zones d'aménagement concerté ngay jël parfois nga jox syndicat bi nga jox syndicat bi syndicat boobu toog dajale ay nitam xool nit yu war a jox ci noonu la président Bassirou Diomaye Faye amee ci seen syndicat des impôts et tous les jours ça se passe comme ça dans le pays et à travers le, le les zones sur les zones d'aménagement concerté ou bien sur les lotissements administratifs yi nga xam ne état bi moo ko defal boppam qu'il faut cacher mais maintenant ala kulli alim état bi war na évaluer loolu lépp ala kulli alim lu mu ci bëgg a jubanti comme que nee na ñoom jub jubal ak jubanti la liñ ci bëgg a jubanti ñu jubanti ko mais jarul jabaana ñit ñi jarul wax na ñu nii dañu pàccoo mais pàccoo au vrai au sens figuré du du terme parce que loo fi gis ci àddina ah, mais bu fekkee ñu ngi wax wolof bi rek pàccoo la gouvernement bi ñoom pàccoo nañ ko ak seen responsabilité seen directeur général ñu ngi koy am ay sénégalais qui qui ont de meilleurs profils et qui ont de meilleures compétences mais c'est la confiance du président de la République mooy tax nga nommé directeur général bi tel et pourtant il y a des plus compétents et plus engagés et plus citoyens mais pourquoi au nom de quoi on laisse au président de la République cette de nommer à des ñu ne yow yaa war a joxe fii ñu ne pourquoi nga joxe diw pourquoi joxe diw man dama jàpp ni li ma doon xaar ñu ne faute bii fii ngeen violé texte bi fii ngeen violé loi fii ngeen jaarul yoon bu ñu reconnaître ko bu fekkee ni yoon dafa war a tegu suñu kaw ñu nangu ko loolu laa wax nag